mondialisation, l'apport la diaspora sénégalaise revêt une signification bien de notre pays. ci gis-gis boobe la ñii di waa ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur sukkandiku lëkkaloo ak commission des affaires étrangères bu assemblée nationale ngir saytuwaat jafe-jafe yi nga xam ne ñii di waa diaspora bi ñu ngi koy dund ngir gën leen a jàppale. Pour nous, il est question de nous imprégner des réalités. li am solo mooy ñu dund dëgg gi nga xam ne moom moo fi nekk loolu moo waral ñu bokk ci bés bi dañoo war a booloo weccante ay xalaat ut ay pexe génne sénégalais yi nekk bitim réew ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk. les sénégalais de l'extérieur. jafe-jafe yooyu nag bëri te wute waaye nag yi ci ëpp di tukkee rek ci mbëkk mi ak itam problème yi nga xam ne ñu ngi koy am ci yenn réew yi. maanaam les passeports les les cartes d'identité ak lépp loo xamante ne les valises diplomatiques mais également. ñu mën a waxtaan ak ñoom ci situation sénégalais yi nga xam ne jaaxal na aussi député yi waaye jaaxal na population yi moo tax ñu wax waxu Tunisie waaye wax nañ waxtaan nañu itam waxu euh, turki lan la ñu mën a def pour euh, euh, juróom benn junniy sénégalais yi fa nekk seet naka lañ leen mën a jàppalewaan bokk na ci situation yi ëlëm ministère bi muy situation bi nga xam ne sénégalais ya nekk ci Espagne te ñu nar leen a rapatrier ñu ngi koy dund. li may recommander mooy ñuy xaar euh, communiquer affaire étrangères parce que xam ngeen ne bu fekkee ne rapatriement am na itam faw Sénégal day jokkoo ak réewu Espagne ñu d'accord ci mbir bi ba pare ñu doog a def un rapatriement. waxtaan bi le nag dana tax député yi gën a xoolaat seen taxawaay ngir saytu dundinu sénégalais yi nekk ci bitim réew te itam defaraat seen taxawaay ci biir assemblée nationale ngir indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñu ngi koy dund fépp fu ñu mën ci nekk.